pour la renaissance moom la ñu invité tey euh, ci émission pencum réew mi fas yéene waxtaanee ak moom nag ponk yu baree baree bari ndax euh, MPR boo ko tuddee jamono ji sa xel dina dem ci euh, coalition les serviteurs MPR mooy coalition boobu nga xamante ni tey tête de liste bi moo nekkoon Pape Djibril Fall parti bi nga xam ne tey moo ci gënoon a fës. Euh, président bi di Amidou caw moom la ñu invité tey danañu wax li nga xam ne mooy euh, collaboration les serviteurs ak MPR nan la ñu ko taxawalee coalition boobu nan lañ demee woon ci élection législative yi euh, ban bilan lañ ciy tiire yooyu yëpp danañu ko daal di waxtaanee Amidou Thiaw ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa leen nuyu ñëpp waa mi FM di leen remercier ci invitation bi. Amidou caw yow yaa euh, yaay président MPR mu nekk euh, parti boo xam ne dafa àndoon ak les serviteurs bu Pape Djibril Fall dem ci élection législative yi euh, sunu première question mooy bala ñuy ñëw ci coalition boobu MPR lan nga ñu si wax ak lan moo tax ngeen créé woon ko. waaw MPR moom parti bu bees ci politique sénégalaise bi donc euh, parti boo xam ne da kaa créé woon parce que dañoo gisoon jafe-jafe réew mi ñun balaa ñu dugg ci politique danoo nekkoon ci association yi di jàppale jigéen ñi bu baax mais bu ñu demee ba xamee ne loolu doyul seen créé ci ni parti parce que dañoo yaakaar ne yenn changement yi état da koo ko mën donc ñu créé benn parti boo xam ne moo ngi tudd MPR ne dañ def politique de développement politique boo xam ne dañuy jàppale askan bi duñu xuloo duñu xeex donc looloo waral def def MPR. loolu moo taxoon ngeen euh, ngeen créé ko ba si ban année ngeen ko créé woon. ñoo ngi am suñu récépissé septembre 2020 mais ñoo ngi commencé politique janvier 2021. mais est-ce que la boo xam ne bu structure la boo xam ne tey boo laajoon euh, président bi ñu ne la kii mooy président bi boo laajoon ñu ne la kii mooy secrétaire général part bi boo laajoon ñu ne la kii moo jiite jeunes yi wala ñu ne la kii moo jiite femmes yi wala kii moo jiite cadres voilà donc euh, parti bi structuré nañ ko. soo xoolee janvier 2021 bi yëpp benn rôle rek na la amoon benn objectif mooy créer bureau dans toutes les régions créer suñu comité directeur donc tey mën na wax ne c'est atteint presque à 70 pour cent parce que tey le comité directeur mooy en place on est dans 9 des 14 régions on est dans 23 des on est dans 23 départements donc loolu moo ngi structuration bi parce que on est partout te tane na ñu bëri sax ci loolu. léegi parti bi nga xamante ni tey mooy en marche pour la renaissance parti la boo xam ne euh, day def ni comme yeneen parti ndax gis nañu bari dañuy créer parti politique euh, parti politique yoo xam ko créer pour créer euh, dem di bokk ci ay ay coalition wala parti yoo xam ne du ñu mos a dem ci participer ci ay élection gis nañ parti yu baree baree bari yoo xamante ni noonu la ñu mel yow ban mébét tey ngeen am ci ci ci parti bi ci ci yorinu Sénégal parti bi bu ñu ko créé ba léegi euh, élection yëpp nañ participer élection euh, locale yi fay nañ suñu caution mais trois communes rek noonu demoon parce que en phase test noonu nekkoon si trois communes yi ñu jël deuxième si deux communes donc loolu mooy ne liggéey bu nu def euh, liggéey bu baax la message baa ngi jàll. élection législative bu mu ñëwee tamit on a on est parti en coalition mais on était la force motrice derrière la coalition. on aussi le seul parti de la coalition donc euh, du parti comme partie du noo ñëw pour bokk si politique sénégalaise bi te ñoo ngi koy wone parce que élection bu ñëw am na résultat te bokk nañ ci. Mhm. d'accord léegi euh, MPR da ngeen a àndoon ak les serviteurs dem ci élection législative yi nga xam ne euh, moom la ñu génn. Mhm. ndax tey mën nañoo xam coalition boobu lan moo taxoon ngeen créer ko ak ban déggoo. Euh, moom moo ci moom moo ci amoon li tax ñu laaj loolu. mooy euh, yow yow da nga nekk président parti MPR. ñu gisoon fi ay coalition yoo xam ne coalition yu mag a mag la. nga dem ci les serviteurs. Euh, lu waraloon loolu. tey ànd ak naa laa les serviteur Pape Djibril Fall mais su doon démb di tey du ko def lu tax ñu ànd ñoom tamit mooy nekk sénégalais gëm. ne nit lu ngay gis ci tele ak ci rajo yi noonu la mel mais tey gis noonu nit dafa lëndëm euh, loolu tax tey am na lu bari ñoo ngi koy regretté ci àndandoo bi mais balaa may wax loolu sax nañu waxtaan tey si lu ñu indi tey euh, lu indi coalition bi ñun après le 23 janvier mu élection locale yi le premier er du dañoo commencé di wër Sénégal on a fait le tour du Sénégal dajale ay parrainage ba am 30 000 parrainages à deux semaines des élections législatives am kenn ku nekk si ni biir mu ne man xam naa kenn ku bokk si les serviteurs est-ce que ñu duñu ànd man ko créer la rencontre kon a créé la rencontre ñu toog waxtaan bu ñu waxtaanee man leen man j'ai trente mille par man leen man tamit am naa euh, soixante cinq millions yoo xam ne mën naa ko teg sur la table am naa cinq voitures ñu ñoom ñu ne ma am na nañu plus de trente mille à cent mille par moom cadre bu ñu utiliser sax mu ne man duma paree ne nit yee ñëw si man di ma parrainé. quoi loolu. Euh, Pape Djibril Fall. donc euh, ñu ne ñoom am na tamit 100 millions am na tamit des ordinateurs et des des machines euh, des ils ont tout ça daal. ma leen waaw logistique ma leen d' accord donc su doon waxtaanee man ko man politique moom du si xëccoo parce que ñoom dañoo bëgg xëccoo tête de liste ma ko kon bàyyi naa leen tête de ma jël deuxième ak troisième position sur la liste nationale donc noonu la euh, tënkee coalition bi dugguñu trop si détails yi. te loolu foog naa tamit erreur la parce dina wax erreur de jeunesse erreur parce que yàgguñu ci politique mais loolu loolooy erreur bi doon nañ euh, doon nañ defaree coalition bi. d'accord léegi euh, yow euh, Hamidou Thiaw. Hmm. président parti MPR. Mm. Euh, dafa am ko dox seen diggante ak les serviteurs bu Pape Djibril pour ngeen waxtaan pour ngeen ànd ci élection législative boobu yow yoroon nga euh, xaalis comme ni nga ko waxee. Hmm. Euh, yor nga oto aussi ñoom tamit yoroon nañu xaalis yoroon nañu euh, seen logistique euh, Pape Djibril Fall nekk tête de bi ndax yow bëggoo si woon xëccoo nga jël deuxième bi ak troisième bi ci ci ci investiture bi léegi bi ngeen waxtaanee noonu ba ba tënk ko ci yan ci yan condition nan ngeen na taxaw noonu ngeen di jëlee xaalis bi ak oto yi répartir ko pour pour dem ci campagne bi waaw loolu laay wax loolu moom erreur la te erreur yooyu sa ñoo ngi doon commencé di ko gis parce que bu demee ba si biir Pape bi Fall euh, damaa dem ba si bis euh, ba si biir ñu bëggoon tuddee coalition bi tur nu ko bëggee tuddee neexuma man ko man benn xaaram damay génn parce que tamit coalition ñu jël deuxième troisième amuñu si visibilité si ñoom nañu ñëw dans le meilleur sentiment ne ne nee noonu léegi nañ dugal seen logo mooy logo parti bi seen couleur te tur bi ñu yokk si impaire looloo waral lool ñu toog di dem di saisir di saisir ñu ñu war a fay man leen yéen ñaata ngeen am parce que dañoo war a fay ñooy sëriñ Thiaw nag lay bàyyi nga fay man ko il foog ñu fay wax leen ma ñaata ngeen am ñu ne ñoo suñu cotisé dina am 100 millions ma insisté waat ñu ne ñoom amuñu dara. waaw. début ba waxoon. te ñu ne amoon cent 100 millions si laay bindee benn chèque quinze million yóbbu ko FBN banque compte parti MPR foofu la nekk ñu bind benn chèque certifié dépose ko CDC tamit parti bu nga ko tegee. ma noon defoon président coalition bi parce que man sama wàllum bopp maa bindi lettre nommé Penda Dieng mandataire national de la coalition des serviteurs impairs lettre boobu ma signé en tant que président de la coalition moom na lañu déposé DGE tey bu ñu demee nag euh, commencé saisir ñoom ñu ne am na noonu locale ak ay ordinateur ñu toog di xaar gisuñu dara ñu ma jël sama bureau yi ñu siy saisir ma jënd six ordinateurs ñuy saisir chaque jour ñu ne tey suba pareegunu da nga koy raxas da nga koy raxas ba tey ñu wax ne mosut a pare am donc sa mbiroom nanu saisir euh, yëpp mooy lépp luy parrainage bu nu loolu weesoo loolu tamit ñu war a génne parrainage yi nag te ñoom 8000 parrains noonu am. muy 8000 parrains. 8000 parrains kese noonu am donc loolu mooy déception bu rëy parce que ñoom seen seule contribution dans la coalition mooy 8000 parrains yi. ak lu nu wax yëpp dara du si woon dëgg. génnewuñu xaalis. génnewuñu xaalis génnewuñu euh, logistique génnewuñu ordinateur génnewuñu fu ñuy saisiré génnew 8000 daal lañ fa joxee jeex caution bi nag. caution bi maa ko fay moom laa wax damaa bind benn chèque quinze 15 millions déposé ko sama parti euh, compte parti bi ak banque ma bind benn chèque euh, certifié déposé ko CDC. donc euh, noonu déposé caution bi. d' accord mais ñoom 8000 parrain la ñu am nan ngeen def ba complété. voilà maximum de parrain. donc euh, man mataluma ñun ñaar suñu boolee parce que man si ma parrain bu ñu ko saisiree on a perdu beaucoup de parrain déjà qu'on a saisi sur les 30 000 24 000 ont été a nettoyé moo si des donc loolu tamit beneen jàngal la ne saisi moom il faut ñu teel si jug prochaine fois teel a def liggéey bu baax donc moom moo am 18 000 man ma am 8 000 parrain soo ko boolee mu nekk 26 000 parrain. ñu war a dem di déposé fekk fa waa Jurbel DG e. parce que ñu dañoo bëggoon pour ñu may ñu temps pour ñu mattali ñu dem foofu di déposé fekk fa waa Jurbel waa DG e ne leen yéen waa Jurbel soo leen déposé du leen accepté parce que mattaloo leen mille dans cette région ñu interpellé leen ne kaay leen ànd ak ñun ñoom ñu d'accord donc ñoom bu ñu ñëwee ñu jox leen euh, tête de liste Diourbel jox leen cinquième position sur la liste nationale ñoom ñu jox ñu seen 28000 par an donc tey waa Diourbel ñoo matal ñoo ñuy mottali te tey Pape Thiam moo nekkoon intermédiaire bi loolu tax def tey su ma gisee Pape Djibril Fall def point de presse du tudd Pape Thiam te kooku su ko xawloon su ko fekk loon DG tey duñu dem man tamit loolu maa ngi koy ñaawlu parce que man mu mun am ay xuloo sini biir warta tax duñu tudd turu Pape Thiam te xuloo moom Pape Djibril Fall fu ma jógee parce que bu paree nee ba pare ba déposé 54 mille par an Pape Djibril dafa njëkkante poste si réseaux yi ne vous m'avez fait confiance j'ai 54 000 par alors que 54 000 parrains yi 8 000 la si indi Pape Thiam merci loolu nag ni Pape Djibril Fall li mu wax du dëgg ñun ñoo indi lu si ëpp na wax dëgg bi foog naa dem na fi sa Walf TV di ko wax. non même seen conférence presse bi ñu fi doon def ci benn hôtel euh, Pape Thiam génnoon na ba mer noonu. voilà loolu la woon parce que Pape Djibril Fall dafa waxul woon dëgg bi mooy lan sur les 54 000 parrains mënoon na wax ne waa ba ñu indi woon 28 000. impère indi 18000 ñun on a am nekk 8000 mais dafa dem mel ne moom moo def liggéey ba yëpp di tudd boppam Pape Thiam xaw a merci loolu bopp euh, si lool ma woo ko nag ne ko Pape Thiam kilifa nga war def yenn yi mu d' accord ñëwaat bàyyi loolu yëpp mm-hmm. mais taxu ba léegi Pape Djibril Fall bàyyiwul loolu di ko téye mais ñuy wax rek mooy euh, trois trahison la man kenn trahison laa koy tuddee parce que bu mu commencé ba léegi lépp lu mu wax defu ko muy xaalis moo xam ne indi indiwu ko parrainage moo xam indiwu ko parrainage euh, joxu ko Euh, euh, logistique yeeg matériel wax indiwu ko pare dem ba si biir bu lépp amee nag ba nu déposé mu dem def récupération ne moom moo def lépp dem sur les plateaux télé di wax man Pape Djibril Fall man les serviteurs ba Sénégalais yu bëri foog ne moom da ko demal boppam xamuñu nu mu demee donc tey ñu bëri tey même yow mi sa di toog di ñuy waxtaan est ce que yow xamoo nga ni sa Pape Djibril faal euh, amoon na ñee ñu nekk si ginnaaw ñoo porté ko te ñoo ñu ngi si woon coalition bi donc euh, loolu na doon ñaawloo di ñaaw loolu tamit. d'accord mais mais mais euh, mais Hamidou euh, Thiaw yow euh, xanaa amuloo staff aussi boo xamante ni tey bala ngeen génne seen xaalis wala ngeen di wut seeni i ordinateur wala seen local wala ngeen indi seen i seen i parrain wa ak say oto xanaa di ngeen di ngeen dinañ les serviteurs ñoom Pape Djibril Fall dinañ teg ci seen loxo lu concret loo xam ne di ngeen ci mën a sukkandiku. xam nga peut-être lu mu yàgg dans le privé moo tax parce que man damaa wóolu nit ma ne après dinañu joxe donc euh, comme les délais étaient un peu courts on devait loolu yëpp si biir semaine bi la parce que ñoom euh, ils on donné les parrains foog naa le vendredi donc foog naa ñu woon déposer le samedi noonu jot parrains yi euh, boobu lu ñu dé waxtaan pour déposer caution bi te ñoo ngi ko déposer vendredi donc mercredi donc on a déposé le mercredi donc si 4 jours 5 jours lépp xa lépp am. comme dafa xatoon rek ma ni bàyyi leen ma fay ñëw après ils vont me rembourser donc noonu laa xalaatoon yéene bu baax mais loolu yëpp bu ñu ko defee ba pare le 31 mai man ak Pape toog na fii rajo Sol di waxtaan mu ne ma Amidou suba ñun ñëpp ñu toog waxtaan xool ñu defee comité yi comme ça ñu dem camp pré campagne mais bu ñu déposé le 31 mai si laa gëj a gis dama déposé rek mu disparaître ba une semaine après les élections la ma woo jëluma ko téléphone. parce que dama ne nit boo xam ne dafa fu traître la def utiliser benn nit ay nit ba am lu mu bëgg dem disparaître dootoo leen tudd dootoo leen dégg doo leen sa wax ci seen presse sooy def si ay enquête euh, euh, tuddee sa sooy waxtaan maanaam euh, Amadou yow bi nga joxee caution bi ngeen nga wut local ngeen saisir seeni parrain Pape Thiam Diourbel complété leen mhm. nga toog ak Pape Djibril ngeen waxtaan ci Euh, pour dem pré campagne après campagne. avant pré avant pré campagne bi nga gëj a gis Pape Djibril Fall ba ci une semaine avant les élections 31 mai. la laa gëj a toog waxtaan ak Pape Djibril Fall. 31 mai. waaw ba kañ. Euh, ba semaine passée vendredi ba la passé après euh, les élections les élections. après élection la la woo wala avant les élections. une semaine après les élections vendredi bu topp élection yi la ma woo mais jëluma ko téléphone. te yow yaa joxe caution bi. maa joxe caution bi joxe parrainage joxe logistique lu si maa leen ko jox. ok mais loolu ban ba lu waral loolu lan nga jàpp exactement ne moo waral euh, euh, doxalin woowu nga wax moom la Pape Djibril Fall doxalee. pour man daal euh, il voulait se lancer dans la politique te foog naa il voulait utiliser juste ay nit ay tremplin pour am lu mu bëgg pour pour man loolu nekkoon objectif am jaay turam jaay boppam pour tey mën a dem élection législative. peut su ko weesoo sax dem yenn élection bi présidentielle wala créer benn groupe te tey dafa ragaloon peut-être su waxee ne ñi ñoo nekk sama ginnaaw ñu peut-être ñu ëpp ko visibilité peut-être loolu laa yaakaar mais ku nekk ak motivation mais yow bi ngeen waxtaanee 31 mais mm-hmm. ngeen waxtaan ba pare. Mm-hmm. Euh, ngeen toog ay fan. Mm-hmm. dégguloo ko. Euh, est-ce que woo nga ko téléphone pour jéem a xool exactement lan moo waral loolu. Voilà, donc le staff a appelé, donc, euh, qui charge les entre les organismes affiliés. Où on a plusieurs fois pour organiser des réunions, mais à chaque fois, ils nous ñoom danoo jàpp ñoo ngi sur le terrain suba ginnaaw suba ginnaaw suba ginnaaw suba. mais sur xam nga nous on a fait ce qu'il fallait faire woo ñu toog waxtaan. on a relancé plusieurs fois mais mosut a nangu toog waxtaan soo ko waxee mu ne dafa jàpp day voyager euh, semaine prochaine semaine prochaine semaine prochaine ba élection yi passé élection yi passé na bu mu woote waatee ma ne man du ma ko jël parce que élection yi passé na amatul njëriñ la coalition na parce que man su ma xamoon nii la mel du ma àndoon du ma ànd ak euh, Pape mm-hmm. waaw donc erreur la euh, mais tamit euh, erreur boo xam ne erreur bu noble la parce que bu doon ànd ak moom yaakaaru ni moom nii la lëndëmee que warkat la lépp lu wax du ko def. ndax mais mais mais Hamidou Thiaw gis réaction bi nga xam ne tey moom la amoon. bi muy bi mu jàppante ak Pape Djibril Fall ouvertement euh, ci presse bi. Mm-hmm. mais yow yow yaa joxe caution. Mm-hmm. yow yaa wut local pour ngeen saisir seeni parrains. Mm-hmm. Euh, yow bi ngeen bi nga defee loolu lépp. Euh, moom mu am benn doxalin boo xam ne moom la doxalee. lan moo tax communiqué woo ci presse bi. non boobu comme commencé na pré campagne ak campagne dama ne soxlu soxlawul may yàq coalition bi. ne ku nekk dem campagnal boppam peut-être euh, lu ñu am ñu xam ne loolu yàlla may ko après ku nekk koneel boppam parce que tamit euh, comme ñoo bokk liste mënoo attaqué ko xam ne yaa ñoo bokk liste loolu après campagne nga mën a rétablir la vérité loo tax soo gisee tey ma toog fii réew mi di rétablir la vérité looloo tax parce que tamit bugguma tey ñoom ñu yàq lu ñu bëgg def parce que lu ñu bëgg def mooy tey changer politique bu fi nekk parce que politique sénégalaise bi euh, mooy lan tey ñu bëri dañuy politique ndax alal ñu bëri dañuy politique pour seen intérêt personnel ñu bëri sax dañuy fàtte ne askan bi moo leen euh, euh, moo leen teg fu nu nekk donc ñu loolu ñu bëgg a changer ñu doon bëgg a liggéey jàppale nit yi xeexal leen tey suñu waree Sénégal deux fois wala trois fois pour mën leen xeexal parce que nit soo ko bëggee xeexal il faut nga xam luy jafe-jafeem te noo xamee jafe-jafeem il faut nga dem sur le terrain déglu ko tey suñu demee ba Saraya dem ba Bakel dem ba Ziguinchor fu nekk dem ko fa Sénégal on a fait le tour du Sénégal deux fois en deux mois lu tax loolu pour ñu dégg problème yi bu ñu demee Ziguinchor am na ay dëkk yoo xam ne les gens se cotisent pour fay seen euh, sage-femme su bu ma demee Kédougou am na kenn ku doon kaas ne moom da nga kaa tëj prison parce que dafa doon gas gis or këram mu ko ne di ka gas gars yi ñoo nangu matériel nekk yoo amuloo permis d'exploitation. donc problème yëpp su ñu ko mënee dégg c'est parce que doonoo dem sur le terrain bu demee euh, euh, Joal am ñu doon kaas tamit ne ñoom dañuy sànni seen baali ak Saint-Louis mais bateau yu mag yi des fois day ñëw dagg ko te maali dafa chair ñoom dañuy kaas ne ñoom suñu nappee ba am ñu fu ñuy denc seen jën yi amuñu ay chambre froide donc suñu ko teel lay jaay day yàqu donc loolu mooy ay problèmes yu bëri yoo xam dañu kaa dégg loolu exemple ci parmi des milliers da nga kaa dégg mais pour dégg loolu yëpp il faut nga dem sur le terrain. d' accord mais mais mais Amidou euh, ñu euh, revenir tuuti ci seen euh, coalition boo bawoon euh, les serviteurs impairs même affaire parrainage. Mhm. Euh, amoon ngeen si problème wala Pape Djibril Fall amoon na si problème ak Amsatou Sow Sidibé. Mhm. yow yaa ngi ci woon lan nga ci xam. man daal lu ma xam si parrainage yi man les serviteurs ñëw na ne ñu ànd Amsatou ak Amsatou Sow Sidibé man ko man du ma ànd ak des politiciens. parce que les politiciens ont une mauvaise réputation man su dee ñu du politique laa àndal loolu laa ko wax mot pour moom ne man dama ànd ak moom ñoom lu ñu négocier ñoom ñoo ko xam man xam naa ne man sama parrain am naa ko moom man si sais qu'il s'est au niveau de Amsatou Sow Sidibé donc loolu mën na nekk dëgg du nekk dëgg loolu xaw ma ko man lu ma xam tey parrain yi man lii laa indi si parrain Pape faa Fall lii la indi waa Diourbel lii la ko indi te lépp moo sama ordinateur te ku mu ko laaj ci parent sa public ne ma ne mes parents yi mooy yu Pape Djibril Fall yi mooy léegi euh, sénégalais xool su dee am sa société bi fu mu gis parent am yii moo ko moom mu ne mii ko moom may man sama parent moom xam naa ne man sama parent la parce que man bu may parrainé damaa dem laaj ni directement seen carte d'identité donc j'ai les copies des cartes de tous mes parents donc tey su ma nee nii 18000 la. Euh, euh, ñu nu saisir j'ai les 18000 cartes léegi euh, du Thiaw euh, yow lañu invité ci rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi euh, MPR àndoon ak les serviteurs bu Pape Djibril Fall dem ci élection législative yi dafa am loo xam ne bëgg naa mu leer aussi si bopp ñuy déglu yéen bi ngeen taxawalee coalition bi xanaa taxawal ngeen bureau boo xam ne di ngeen ne kii mooy trésorier kii mooy yor programme comme nañ ne kii mooy président kii mooy yor xaalis bi kii mooy dégees si kii mooy nangam. Euh, est-ce que organisation boobu noonu amoon na. waaw dafa ne organisation boobu mais tamit organisation boobu mutul def si les deux principaux les deux principales parties tooguñu liggéey du amul njëriñ te foog naa looloo am te dem na sa bay xëccoo di am xëccoo yu ñàkk fayda parce que tey euh, bu ñu toogee war a liggéey ñoom tooguñu liggéey ñun interpellé nañ ci ay réunion mooy sama équipe. ne leen il faut ñu wax waxu finance parce que sans finance mu ñu campagne. ñu tontu leen ñoom ne nanu bàyyi waxu xaalis xaalis garaaw xam na tax ñu doon daw waxu xaalis ba parce que ñu nu àndaloon ñoom dañ leen dig loo xam ne ñoom amuñu ko mun ñu ko moo tax ñu doon daw wax boobu man loolu laa yaakaar mais tamit euh, bu ñu xamee ne ñii ils avancent pas seen jëlee ñu jël suñu destin mais commencé dem campagne suñu bopp loolu war a tey ngeen gis sama panne publicitaire si biir euh, euh, dëkk bi mais taxul man ñun imperne nañu campagne ba pare def ne lii mooy suñu bulletin parce que MPR loo mutu xool am nañu base loo mutu wax am nañu base parce que dem nañu si trois euh, communes jël deux communes jël fa deuxième Notto Diobass on a eu trois fois le score de Yewwi waa d'accord mais yéen ñaata ngeen def ci ci ci ci élection yi ci campagne bi yéen waa MPR. comme ni ko waxee rek man j'ai tenu parole on a mis les 65 millions donc on a dépensé 65 millions dans euh, dans la campagne parce que budget laa gënoon teg ko ne pour campagne la ñu on a mis euh, je la fin plus à la disposition de nos coordinateurs dans les régions. Nous, on a la tournée euh, au euh, Cyber Sénégal. On a fait des panneaux publicitaires. On a fait 33 émissions, euh, émissions radio et télé. donc euh, am na lu bëri yoo xam ne def nañ ko ci campagne donc nous on a joué notre partition te tey fu nu demoon tamit danga fi am ay bain de foule. waaw mais loolu lépp nanga ko mën a defee du Thiaw yow mi nga xamante ni te yaay euh, benn parti ak les serviteurs. Mm-hmm. nga def mën a def loolu lépp te sa diggante ak Fall neexoo amu ci. xam nga rek comme on est dans la même liste euh, xuloo bi soxla ñu koy def si ñëpp di ko xam du xuloo sax parce que trahison mu am trahison bi soxla ñu ko xam. donc na ne ku nekk demal boppam rek ñu dem liggéey parce que loolu am parce que moom dafa demal dafa dem beru déjà. waaw comme dafa beru ñu tamit duñ toog si banc touche ñu comme ñu si liste bi ñu dem liggéey lu ñu war a liggéey mais tey gis nañu tey ne c'est quelqu'un qui est venu euh, fen ñu utiliser ñu ba pare dem yoonam. mais tamit loo mënta wax tamit nitoo lëndëm rek loolu dañuy jàngat la. kon regretté nga ko. non jàngat la donc dam koy félicité moom si lu mu nekk député euh, ne ko nag Sénégal yi sas na ko na liggéeyal Sénégalais yi na woon Sénégal li muy xaar si ñoom te bu mu leen woon lu mu woon. ah luy loolu. ah lan mooy loolu. bañ leen trahir. kon mais kon yow amuloo yaakaar ci Pape Djibril Fall mu tenir parole à l'Assemblée nationale. Ah, mën naa am xam nga c'est quelqu'un koo xam ne il a beaucoup d'ambition. te man euh, comme ambition yi moom yemul si député yaakaar ne dina yàgg nax Sénégal ba am lu mu bëgg a am donc mën na mu def lu ëpp lool. Euh, mu liggéey tuuti pour am lu mu bëgg a am di ko ne nax nit yi. mais man lu ma ñaawlu déjà mooy noo mënee campagne tuddoo benn yoon Macky Sall te Macky Sall tey la ñu bëri mere donc yow soo waxee je suis côté du peuple peuple bi mere euh, le président da nga war wax da nga leen war a kaasal. mais soo ne côté du peuple ngay attaqué opposition bi di attaqué yeew yi wala di attaqué Sonko pour loolu maanaam koy ñaawlu parce que tey ñun opposition bi suñuy xuloo si si de l' opposition ñuy xuloo si biir Macky Sall arrangé donc tey ñun opposition wu ñu xuloo si biir. waaw mais mais euh, les serviteurs impairs dafa am ñu njortoon ne wala ñu njort ne euh, Macky Sall wala nguur gi moo nekk seen ginnaaw. en tout cas impair nguur gi nekk suñu ginnaaw te ñoo financé lépp ñoo def lépp. mais tamit yéen financé yéen seen campagne. ñoo financé campagne bi campagne am yéen financé leen. non financé wuñu jàppale nañ leen tuuti rek côté Kaolack mais financé wuñu campagne am mais euh, ñun communication bi on a lancé le procès euh, le message tout sauf Macky mooy concept boobu. dañoo dem sur le terrain wax nit yi voté leen ku leen neex mais bu leen voté Macky. parce que pour wane ñun MPR nous sommes de l' opposition te suñu euh, politique c' est pour génne fi lu fi nekk parce que lu fi nekk baaxul. loolu lañ doon wax. waaw mais mais le fait que Pape Djibril euh, di attaqué opposition bi attaqué wul Macky ba nga ba nga remarqué loolu ban jàngat nga ci am. ah loolu rek nit moom mooy loolu kenn xamul motivation am soo gisee euh, man je me suis distancé de lui du tudd turam du wax turam nangu ma sa feeñ rajo ak télé. parce que comme moom moo pour visibilité je voulais pas qu'on associe ma personne à la personne de Pape Djibril Fall parce que gis naa nu muy doxalee pour man c'est un traître day nit yi bu ma tey ñu nuy boole même paquet bi moo tax mu kaa teel du ma wax si moom du ma ko tudd ñu doo dem campagne suñu bopp montré ko ne de l'opposition di casse Sénégal di leen déglu mais surtout di wax lu naqar sénégalais mooy lan régime bi nekk en place baaxul danoo bëri ay détournement danoo bëri yu bon yu ñuy def te noonu fexe ba changer loolu mais pas changer pour changer mais changer avec des personnes yoo xam ne c'est des personnes crédibles ñoo xam ne danoo ñëw pour liggéey ñoo ñu pour utal alal noonu mooy tamit Sénégal lu ñu tardé tout temps on prend des chômeurs teg leen te ñoom suñu duggee si état bi lu ñuy wut si mooy am xaalis man fu ma demoon dama kaa doon wax nit dama kaa doon wax nit yi carrément ne ma su ma nekkee député du ma jël 1 million 300 salaire bi dama kaa doon wax ne oto beeg essence bi dama koy affecté loolu yëpp pour wane ne ñun politique ñu pour xaalis dañoo ñëw pour servir le pays on va le gratuitement te loolu tamit maa ngi invité ñëpp ñu dem assemblée ñu def le même geste parce que tey dëkk bi dafa metti c'est pas normal qu'un député qui travaille euh, mois des fois di jël ay vacances di fekk 1 million 300 di doon oto 40 millions ñu ko jox 500 litres essence alors que le peuple souffre c' est le même problème au niveau de HCCT ñu jox bi nit yi 8 milliards par an alors que soo demee yenn dëkk yi ñoom dañuy cotiser seen biir pour fee ay sage-femme xaalis boobu na ko jàppale askan bi su dee wax dafa war a ànd ak jëf ñun tey suñu bëggoon siiw mënoo noon siiw mën a def tur rajo yeeg télé yi comme tout le ñëpp xam ñu mais on a préféré des hommes d' action tey ñoo ngi politique mais ñoo social tamit te loolu dañ ne tey suñu nekkoon si gouvernement bi xaalis bi dañ koy delluwaat askan bi pour woon ne y a des de valeur yoo xam ne dañoo gëm seen réew dañoo bëgg a liggéey lépp am si état bi dañ koy delluwaat askan bi nag loolu la ñuy ñaan nag ñëpp ñu nu dugal si assemblée bi ñu def geste boobu même suñu joxulee lépp sax ñu jox une partie de leur salaire delluwaat askan bi delluwaat oto yi parce que 40 millions bokk ñaaw na si pays yu gën a pauvre si àdduna bi ñu jox député 40 millions une assemblée qui coûte 130 milliards alors qu'on fait partie des pays les plus pauvres du monde asam yu gën a cher ci Afrique de l'Ouest loolu dafa ñaaw loolu nga ko war a ñaawlu te loolu tout le monde est complice ku jël xaalis bi tu es complice. ah bon waaw. d'accord léegi Hamidou euh, Thiaw dinañu ñëw ci euh, assemblée nationale ak lan nga ci xaar ak HCCT euh, institution ñi nga xam ne ñenn ñu jàpp nañu ne institution budgétivore la léegi pour ñu jeexal ci élection légis élection législative yi yow yaay yow yaay président MPR nga àndoon coalition. ak euh, les serviteurs euh, jafe-jafe am na seen diggante ak Pape Djibril Fall comme ni nga ko waxee euh, bien avant les élections pré-campagne si ngeen am si mënutoo koo gis lam la waxoon ci mbiru parrain amul lam waxoon ci mbiru xaalis amul mbiru local aussi ak logistique amul yow nga wut sa indi sa parrain wut sa logistique jël sa million millions def ci Pape Thiam Diourbel ñëw complété leen ngir mu ngeen mën a participer ci élection yooyu jafe-jafe mujjee am yow mi jiite MPR diggante digganteeg Pape Djibril Fall waaye diggante Pape Djibril Fall tamit ak euh, Pape Thiam jafe-jafe tamit euh, am ci loolu ñëpp jotoon nañ ci ci ci presse bi léegi yéen waa MPR résultat bi Pape Djibril Fall am mhm. ndax yéen jàpp ngeen ne yéen participer ngeen ci. ñun dans les régions euh, damay jox ba exemple ay chiffres laa lay jox parce que wax yomb na may joxe chiffre moo gën a yomb tey man sam village am faa gagné. Pape Djibril Fall caajaan ko fa dóor dóor yu metti Pape Djibril campagne de biir Kaolack euh, des jours def na ay porte à porte wër na village yëpp ànd ak les artisans foofu fa campagne il a eu cent voix. à waaw dans la région. dans le département man dans la commune de Diobas campagne moo fa j'ai 1500 voix donc loolooy wane ne visibilité ak siw du électorat. te tey lu ñu indi ñun waa euh, MPR su ko dindee gëm naa du nekk député ñun tey fu nu dem di nga fekk des centaines de des milliers de personnes benn fu ñu am ñoom fu ñu dem deux trois personnes. d'accord léegi retiré nga ci coalition bi. retiré on a fait de manière officielle on a lancé en communiqué pour wax ne on se retire de la coalition. léegi euh, sa communiqué boobu dama gis nga ne képp ko utiliser seeni couleur yéen MPR wala seen logo da leen di yóbbu ci yoon. waaw parce que suñu logo la qu'on a déposé au niveau de du ministère de l'intérieur ne mooy logo parti bi tamit couleur bi moom lañ déclaré au niveau du ministère de l'intérieur ñu abuloon ko coalition ba léegi comme ñun on se retire parce que la coalition elle est que de nom parce que y a aucune charte qui définit la coalition waaw mais bu ñu doon dem élection ñun da koo amoon euh, papier parce que ñun la ak ay ay mouvement c'était trois mouvements ak benn parti sama parti da ko joxe euh, récépissé am du ko su génnee rek amatul coalition. Mm-hmm. légalement sa ñoom mënutuñu def sa coalition. Mm-hmm. waaw mën na ko tuddee coalition nii rek mais bon ñoom kenn am si papier. d'accord mais résultat yi ngeen am noonu euh, est-ce que nekk na résultat yoo xam ne moom ngeen doon xaar. noo am na nañu déception tout si résultat yi te foog naa lu ko waral mooy euh, tête de liste yi nu mu communiquer. comme ni nga ko waxee rek sénégalais yi dañoo sonn et de façon démocratique génn nu nànk dem sanctionné te foog naa bu ñuy sanctionné ñoom dana dafa leeroon seen xel yi ne Yewwi wàllu da ko fi nekk opposition. maanaam da seen tête de bi dafa wax ji moo desee leer. voilà Yewwi wàllu moo fi nekk opposition te lu ko waral mooy tête de bi moom ni muy waxee comme nu nga ko waxee rek campagne ba jeex tuddoo Macky Sall xasoo Macky Sall waxoo si waxu Macky Sall di wax sa waxu bopp. parce que yow yaa ngi campagne mais yaa ngi préparé sa prochaine campagne yaa ngi campagne mais waxoo Sénégal sa bopp ngay wax pour préparer sa prochaine campagne waaw mais tamit euh, lu nga ñax wax Macky te les gens étaient di bëgg a sanctionné moo tax tey ñoom ñu ñëw jug dem euh, sanctionné mais bu ñu doon sanctionné tamit ku nu wóolu ne moo nekk ci opposition bi nañu voteel muy yeewi wàllu hmm. waaw donc ñoom tamit ñoom tamit bu ñu décevoir euh, attente sénégalaise Euh, te loolu moom macha allah te gis nañu depuis le début ñoo ngi koy def. Euh, mais si biir campagne bi dañu gisoon Ousmane Sonko mu ne coalition yëpp à part Yewwi Wallu euh, Macky Sall la ñuy liggéeyal communication boobu Ousmane Sonko defoon lan moo ci nekkoon sa réaction. non dama leen ni loolu politique la. politique moo mel noonu dafa sànni benn yàq gaa yi ñëpp ñëw Sonko su la sànnee yax bu ko laal parce que sànni na ko les gens mordus à l'hameçon et lu mu leen wax mu ne opposition bi xas opposition. si état nga bokk yàq na xel Sénégal yi donc politique moo mel noonu. donc ñun réaction da nga bi kan jàll na ñun réaction bu mu ko defee euh, envoyé ko ñu on a man MPR ak ñu on réagi en attaquant Macky Sall à nouveau pour montrer ko ñun nous sommes de l' opposition mais tey duñu man dama ne man euh, sama poste du mës a toog tey di xas euh, Yewwi wala wàllu parce que tant de ñoo ngi défendre les intérêts des Sénégalais. Mm-hmm. tant que ñoo ngi défend les intérêts des sénégalais nekk seen posture du benn di attaqué parce que loolu Macky Sall lay jàppale. mais yow Hamidou euh, Thiaw yow nee nga euh, posture yeewi taxawaay bi ñu am ak euh, discours yi nga xamante ni moom la Ousmane ko doon def. bu doon tey discours la yoo xamante ni tey yu la yoo xam ne yu la doy la. que ni kii àndul ak Macky Sall. Mm-hmm. lan moo tax jéemoo loona bokk ci coalition boobu. non xam nga comme ni nga ko waxee rek euh, la coalition yi tamit y avait trop de politiciens wala d'anciens euh, de anciens politiciens man tamit sama un peu parce que su dee ñoom ñun bëgg a génne te wu ñu ànd ak ñoom di liggéey moo tax tey su ma ñëwee ne sama logique ne bëgguma ànd ak ay anciens politiciens euh, du ma ñëw di dugg si Yewwi ak wàllu parce que ñu si ëpp ñoom am na xam ne si système bi doon bokkoon problème yu bëri ñoo ñu am Sénégal ñoo ñu ko teg. donc loolu tax sawru mu. mais léegi affaire de affaire de système la wala affaire de personne ndax yow euh, ki nga àndal di Pape Doudou Fall euh, jàppe woo woon ko comme comme comme comme politicien yi mais ah, ni nga wax ne moom la doxalee est-ce que affaire bi affaire de du affaire de personne. mais système bi ñi nekk si système mooy les sénégalais système c'est c'est les sénégalais qui sont à donc euh, c'est un reflet un peu de la société. loolu loolu moo xaw yàq Sénégal moo yàq politique Sénégal parce que Sénégal dëkk boo xam ne bu yomb defar la on a tout faut pour se développer soo xoolee on a des ressources naturelles on a kilomètres de côte on a foo ji mu màgg mais lu koy yàq rek on a un problème de te loolooy suñu problème te loolu tamit dafa reflété wu tey si politique bi donc tey it il faut ñu seetlee les bonnes yu ñuy àndal ñoo xam ne gëm nañu seen réew ñu ànd ak ñoom donc euh, tey bu nu duggee si politique bi nag on a beaucoup de déception parce que lu Sénégal di gis moom la ñuy gis ñun tamit mooy bëri na ay traître am ñoo xam ne seen intérêt personnel loolu la ñuy gis tout temps di ko gis tout temps ba à la fin sax même l'électeur sax day dem ba découragé ne ñun daal Sénégal ñëpp ñëpp a benn loolu. léegi yow noo fas yéene def léegi MPR. MPR dama si bopp dama si bopp parce que comme ñu nu gis doyuñu pour l'instant dañuy dema si ni bopp. kon ne def suñu promotion di liggéey parce que parti bi amagul deux ans mais en moins de deux ans a seize Euh, dem na euh, élection législative am nañu benn député donc euh, c' est des résultats yoo xam ne très encourageants yoo xam ne parti musu ko am si Sénégal mm-hmm. en moins de deux ans donc dañu gën a kon ni liggéey bi gën a kon ni visibilité bi massification bi mais surtout être à l'écoute des Sénégalais mais surtout bañ a trahir bañ si mentalité changé bañ politicien change ko parce que politique da lay changé soo fa yàggee ñu lay wóor ñu lay conseil des fois ñu lay dem ba changé la mais loolu mu doon loolu du dañ parce que man dama ne su may politique deux parce que dañoo gis naqar bi nag ci Sénégal il faut ñu dindi ko nit yi doonoo sonn y a rien du tout ci dëkk bi su weesoo loolu tamit soo nekkee ci dëkk nit yi di fàttaliku démb rek loolu baaxul parce que dana wax ne le maire de devant nous man bëgg naa bàyyi Sénégal boo xam ne moo gën Sénégal bu mu fi fekk pour sama doom donc loolu sama motivation tey ci politique bi waaw. Mmh. d'accord léegi euh, élection yi gis nañ Benno Bokk Yaakaar euh, mu am résultat mu amul majorité absolue euh, à part Pape mi ñëw fekk ci ci moom. Euh, ki ngeen àndaloon ba mu nekk député nee na euh, dafa bokk ci non inscrit farul fenn léegi euh, Benno Bokk Yaakaar jafe-jafe bi mu am ci ci élection yi instant bi mu nekk muy nekk sous pression ci ci assemblée nationale ñenn ñi jàpp ko ne sax Benno dañ ko sanctionné ban jàngat nga am ci loolu. Ah, Benno je pense que ñoom ils sont man xamul lu xew si Benno foog naa ils ont déçu tout le monde. c'est-à-dire que ñu bëri amoon nañu yaakaar bu nuy fal euh, président Macky Sall mais déception bëri na si liggéeyam yooyu bu a eu beaucoup de déception ci nu muy doxalee réew mi bëri na scandale on fait beaucoup de beaucoup d'infrastructures di tabax rek te nit yi lekk ñu naanuñu donc foog naa loolu tax nit yi gën ko sanctionné si loolu mais je pense que ñoom suñu wàññoon des dépenses inutiles les scandales mm. euh, fexe ba nit yi euh, am liggéey bu baax liggéey boo xam ne dañ si liggéey bu décent boobu dina fekk dina pare dina xaw a lu bëri mais dafa mel ne ñoom seen yoon bu mu jël nangu ñu si génn. donc c' est dommage c' est vraiment dommage nag loolu ñoo ngi koy ñaawlu bu baax. mais est ce que ñuy wax fin de règne la Macky Sall nekk. ah si la nekk si la nekk euh, parce que sénégalais may nañ ko lu ëpp 10 an pour mu liggéey te résultat yi demeewul noonu. moo tax nag euh, gars yi bëgg a changer te keneen. mais mais li nga wax nii euh, boo xoolee presque méngoowul ak li waa Benno Bokk Yaakaar di wax soo waxee ñoom dañuy wax ne tabax réew mi la ñu wax mënoo ñàkk bañ a defar infrastructure ñoom jàpp nañ ne tey euh, président Macky Sall def na fi ay jéego yoo xam ne sax ñenn ñi jàpp nañ ne war naa mën a am beneen mandat. waaw réew du tabax kese parce que réew tamit soo tabaxee mu mel ne kër nga tabax kër R plus 2 kër di deew xiif lu muntu rafet rafet rafet dag la mere. donc euh, réew tamit euh, ñi fi ñi nekk si biir il faut qu'ils soient dans de bonnes ñu mën a lekk mën a naan mën a am liggéey mën a faju yooyu c'est aussi important que tabax bi mais du benn bi rek donc foog naa ñoom équation bi peut-être xam nañu benn élément mais deuxième élément bi nañu fàtte moo tax mu ngi leen di porter préjudice. d'accord mais assemblée nationale yi ñu yàgg a gis sénégalais dañu dem ba dañu xaw a jéppi sax député yi soxlaatuñ sax mbiru assemblée nationale euh, yow. est-ce que assemblée nationale bi nga xam ne bennoo amul majorité noonu euh, ndax jàpp nga ne changement dina am. non gëm ma changement am parce que kenn amul euh, majorité absolue parce que su ma jumlee il faut trois cinquième ko donc euh, je pense que pendant deux ans ça va être te looloo yàgg am fi assemblée euh, yu si ëpp projet de loi yu si ëpp présidence na passé ko mu jàll. donc soo xoolee mais non bii de loi est-ce que dina jàll parce que projet de loi pour mu jàll day compliqué. te assemblée ñu si ëpp day nekk foofu di xeex ak xuloo rek mais ñu fay passé ay projet de loi yoo xam ne day jàll amul sens. bëriwul. yow lan moo ci sa xalaat ci au conseil des collectivités territoriales. ah au conseil des collectivités collectivités territoriales gars yi dañoo koy tuddee au conseil des chômeurs et transhumants parce que euh, foofu moom pour dugal les amis euh, nañ koy tudd les alliés la. Mm-hmm. parce que soo jëlee loo xam ne c'est même pas démocratique parce que sur les cent cinquante soixante dix moo koy donc loolu moom c'est pas un processus démocratique te le rôle de HCCT mën na ñàkk dans un pays yoo xam ne y a tellement de problèmes xaalis bi milliards boobu mu joxe par an mën na dugg feneen jàppale jàppale nit yu bëri donc HCCT amul lieu d'être. bu dee CSE. même chose ñooñu ñëpp mën na ko dindi c'est qu'il y a trop de conseils de nu ñu koy tuddee d'agence budgétivore yoo xam ne lekk lekk koy xaalis la. yooyu yëpp il faut mu dañ tamit ko ko wàññi seen ni dépense état bi pour ñu mën a investir si biir dëkk bi. mais na du Thiaw euh, gestion réew mi ni ñu yoree réew mi. Euh, yow da nga jàpp ne euh, baaxul lan moo tax nga bu dee baaxul lan moo tax baaxul bu dee baax na lan moo tax baax na su dee baaxul lan mooy solution bi. non xam nga baaxul parce que y a trop de dépenses soo jëlee benn budget ñu ne ni parce que les un tiers wala moitié dem si fonctionnement gouvernement bi. waxuma sa fonctionnement gouvernement bi ay ay des salaires et tout ça loolu moom y a problème parce que xaalis lu si ëpp woon na mën a dem si askan bi donc euh, loolu il faut ñu wàññi seen dépense yi parce que tey ma jox benn exemple bu concret tey la vie est chère démb ñoo ngi wax ne saaku kilo ceeb euh, kilo soble mille francs biir Touba ñu donc mooy 50 000 saaku 25 kilos bi. depuis foog naa un mois wala deux mois ñu ngi kaas ne nu nu fexe dindi TVA bi sur les produits de première nécessité su weesoo lool sax ñu ne tamit subventionné su weesoo lool tamit ñu ne leen tout ce qui est taxe douanière na ko dindi. donc ça c' est des propositions concrètes mën a joxe dina mën wàññi de moitié la prix de certaines denrées alimentaires ba pare surveiller les con euh, les vendeurs ñi di jaay ba ñoom duñu yokk prix yi donc euh, yooyu ay actions yoo xam ne état mën na ko jël pour soulager le problème des sénégalais. mais déggoo état di si wax déggoo opposition di si wax y a ay bataille politique droite gauche droite gauche moo tax dëkk bi du avancé nous ce qu'on propose c'est au lieu di xeex nañu proposer ay solution au problème des Sénégalais euh, euh, le problème euh, donc c'est ça le problème, euh, le problème au niveau de la gestion la gestion day nekk c'est trop politique ku nekk day xool nu may euh, rey opposition opposition bi di xool nu may rey parti au pouvoir bi te ñëpp fàtte ñu leen fi fal mooy le peuple moo tax gestion bi nag dëkk bi baaxul. d'accord léegi lu jëm ci wàllum euh, inondation yi gis nañ ne at mu jot presque ñu def ci ay milliards mais ba léegi saafara mënu ci am. waaw inondation moom c'est un problème qui persiste depuis des années je pense que déjà man su may gis j'ai un peu voyagé mais su ma gisee la taille de nos tuyaux dem si dëkk yoo xam ne il pleut il pleut beaucoup taille tuyaux yu mag nañuy def donc loolu il faut ñu xoolaat tamit nu ñu defee assainissement bi biir Sénégal mais tamit y a un autre problème mooy Sénégal boo gis Sénégal boo gis dina lekk naan mus ndoxam sànni si mbedd bi naan kaas café am sànni si mbedd bi loolu tamit day fatt égout yi. Hmm. ñuy sànni seen mbalit si mbedd yi léegi su demee ba fatt égout yi chaque année da nga gis ONAS di jaar ñoom tam da nga liggéey bu ñuy def di débouché. gis matin bi soit ñu débouché di débouché di débouché mais ñun tam ñoo war a jàppale waa ONAS di bañ a di fàtt yooyu. mais mais mais gestion bi milliards yi état bi wax est-ce que jàpp nga parce que je pense que ñun euh, tey waroon dem à la rajo à la télé chaque euh, chaque fin exercice exercice toog ni lii noonu am ci recette lii noonu leb ci xaalis lii noonu dépensé éducation on a dépensé temps on a dépensé euh, temps HCCT li noonu dépensé lii fi noonu dépensé ministère li noonu dépensé li noonu dugal ci fii li noonu dugal si fii ñëpp Sénégalais xam c'est pas même c'est pas la peine de rentrer dans les grandes lignes mais mën nañu ko def en publier ko jox ko fépp nit yi am ko mën ko lire sur une page wala deux pages maximum pour man looloo xaw a nekk transparence ku si am loolu tamit lu lu la leer wala bu ko bëgg am tamit ay détails mu dem ñu jox ko détail fu ñu koy joxee yi pour man loolu foo am mais tey pour voir les chiffres au Sénégal c'est compliqué amul benn transparence euh, jërëjëf Hamidou euh, Thiaw yow yaay euh, njiitul parti MPR tey lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature président Macky Sall ñenn ñi ñoo ngi koy laam-laamee yow lan moo ci sa position. ah man sama position mooy daal Sénégal yi nu génn sanctionné c'est-à-dire que troisième su amee ñàkk am nu fexe ba alternance am te ñun alternance comme ñooy fal woon ñu ragal dara ñoo seen carte d'identité ñoo ko moom ñu dem sanctionné woon ne fi troisième mandat du fi amee donc su demee tey nu fexe ba doo am sa pour cent pour man ah, noonu laa ko gisee bu ñu ragal dara parce que ah, pour man c'est nekk na fin de règne. nanu dem doo ko doo bi mais te bañ a tas yàq dëkk bi. mais mais Sénégal dañuy wax ne folli la man mais mais mënul fal comme yow ni nga ko waxee yow da nga wax rek ne nañu sanctionné nañu sanctionné nañu sanctionné. waaw folli nag mun mun ñu fal c'est vrai mais tamit euh, benn conseil rek laa leen mën a jox mooy suñuy fal nanu xool kook lu mu def ci réew mi nanu xool jaar jaaram nanu moytu les consultant les consultants sont les chômeurs nanu moytu chômeurs di leen fal. te beneen affaire moo Sénégal tamit 1960 ba léegi indépendance ñu nu mës a fal ñëpp Sénégal. kenn mus si liggéey dans le service privé kenn mus si créer liggéey c'est des gens yoo xam ne état noonu liggéey euh, ba benn instant génn état après politicien yor réew mi ñëpp Senghor ba léegi su des gens yoo rek nañu jox ñu téye seen dëkk bi même profil bi est-ce que changement dina am nunu xoolaat ñu ñuy fal il est temps après ñu jël ñoo xam ne mës nañu liggéey mës nañu créer des emplois jox leen réew mi ñu xoo ñoom lu mën mën ah, mais mais mais mën nga créer emploi mais est-ce que am nga xam-xamu euh, yor réew. waaw loolu yëpp tamit daanaka da nga koy foog ñu koy xool jaar-jaaram mooy jaar-jaaram est-ce que jàng na est-ce que am na expérience professionnelle fu mës a liggéey est-ce que mës na yor ay société est-ce que mës na yor jiite ay mbooloo sur le plan euh, économique euh, financier peu importe nu ko noo koy waxee. mais yëpp il faut ñu xool ko mais waroo ñëw rek parce que nit bi dafa neex nga fal ko. d'accord mais mais yow mais yow tey est-ce que yow yaa ngi wax même bu dee tey am nga programme pour réew mi. Euh, taxawal nga sa parti pour nekk euh, pour jiite réew mi mais balay boobu am na lu bari loo mën a liggéey réew mi mën nga def ay contribution wax sa xalaat ci nan la ñuy def ba ndaw ñu am liggéey mën nga wax ci éducation bu Sénégal mën nga wax ci wàllum mbay mi mën nga wax ci wàllum sàmm gi est-ce que contribution yooyu joxe sa xalaat ci wàllu pour participer aussi ndax yaa ngi koy def. waaw commencé nañ ko parce que soo xoolee parti bi le 1er janvier 2021 nag euh, nag defar. donc l'année 2021 on l'a passé di jéem a structurer parti bi donc nu wax ne 2022 bi ñu commencé politique mais 2022 bi pendant la campagne soo gisee lu ma doon wax léegi si les produits de première nécessité doon nañ ko dugal dans les réseaux sociaux pour ni nit yi voici nos propositions donc loolu ñoo ngi koy def commencé woon ko def te dañ ko continuer di ko def defoon na benn point de presse tamit di kaasa Sénégalais yi di kaasa waa Jobaas parce que dëkk boo xam ne 50 000 habitants. douze douze lits hôpital le maire il est maire et ministre mooy Alioune Sarr yor këram ndox yor piscine di foowe alors que ñu nekk ci localité am amuñu ndox bu ñuy naan demoon la di ko ñaawlu ñu gas forage may ko population bi tey on a formé plus de mille personnes à Thiès jigéen jox ay compétences on a financé plus de trois mille personnes donc ñu on est en train d'apporter notre pierre à l'édifice peut-être mënuñu ko def euh, au niveau de l'État Sénégal bi yëpp mais lu ko mën lu ma mën ñoo koy def. Mm. waaw donc ñoo ngi joxe ay solution ñoo ngi proposé ay solution tamit. kon yow da nga yàpp ne gestion mairie bi euh, wala taxawaay bi Alioune Sarr euh, waroon na amee amee wu ko si commune wu Diobaye. Diobass foog naa le maire là-bas depuis des années euh, su ma plaît su ma jublu ëpp na 10 ans lu jaar si loxoom ëpp na peut-être 4 milliards te def fa dara nit yaa ngi foofu di souffrir 12 lits 12 lits hôpital pour 50 000 habitants loolu rek 4 de santé. loolu rek euh, soo ko déggee rek da nga xam ne kii est ce que am ñi am nañu maire dëkk boo xam ne ñoo ngi jooy ndox ils sont à huit kilomètres de Thiès amuñu ndox bu ñuy naan. de base waaw. su ma juumlee année bi. mais dëkk bi xanaa ñi am na parti am ndox xanaa. Ah, am na parti yoo am ndox mais dama ne quand tu as un budget de cinq cent plus de cinq plus de cinq cent millions parce que ñuy wax six cent millions ñuy wax cinq cent millions j'ai pas le chiffre exact. Mm-hmm. mais tey gas cinq wala dix forages pour régler le problème de loolu méttiwul te ndox xam ne ndox mooy lépp. ku amul ndox mënoo dund waaw mais tey soo gisee même loolu mu ko mënulee sax yow am nga xaalis bi nga jënd ay oto di jënd ay def ay piscine xaalis bi nga defee piscine nga jàppale nit ñi nag sa sa sa mairie. d' accord léegi Hamidou euh, euh, Thiaw ndax yow présidentielle 2024 incha allah ndax candidat nga. candidat bi c' est trop tôt pour le incha allah su jotee dinañ ko wax le plus important mooy gën a liggéey on va faire une pour waxtaan ak nit yi remercier leen si lu mu def euh, su weesoo lool nag dina dugg si parrainage yi pour xool. léegi lépp su matee ñu xàmmee ne Sénégal jox nañu lu nopp ils nous font confiance on va se présenter mais loolu c'est trop tôt pour pour dire que tey di demul duñ dem. mais est-ce que tey euh, ndax dañuy gis ñu bari bu ñu mosaa créer parti politique dañuy nekk ci opposition bi euh, di ŋàññi doxalinu njiitu réew mi mais bu ñu demee ba si yàgg bi dañuy gis ne dañuy dem ci euh, mouvance présidentielle ndax Hamidou Thiaw tey. man nga joxe ay garanti que ne yow Macky Sall moom du ngeen ànd ngeen liggéey. jamais loolu naa ko joxe garanti ni dama mës a dugg biir parti APR. jusqu'à jamais mandat APR même allié non merci. lu tax. non parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup déçu les Sénégalais et te ils ont fait pas mal de dégâts tey dugg nañu si politique bi set ba ñu connaître si set boobu. mais su la woon dana laaj sa xalaat si mën naa ko jox sama xalaat mais du ma ànd moom liggéey. xalaat moom mën naa ko jox sama xalaat mais demande moom liggéey et dama en aucun cas on supporte euh, lu muy def parce que nu ñu koy waxee rek yàq bi bëri na si dëkk bi muy HCCT di TR bi di BRT di euh, euh, CES loo xalaat yëpp ay njuñ jaañ moo si nekk même hôpital Dantec bi sa ñoo ngi koy ñaawlu nu ñu koy defee. Mm-hmm. donc loolu yëpp mënoo def lu bon yooyu yëpp. nga koy ñaawlu te ñu koy tabaxaat. tabax bi l'idée est bon mais jëfin bi moo baaxul parce que hôpital bi dafa jot ñu réfectionné ko. plus de cent ans war na ko réfectionner mais tamit lu tax ñu jaay trois hectares pour def ko li état n' est pas trente milliards près loolu mooy wax rek ñu ñu waxati mooy njuuj njaaj waaw parce que bëgg nañu jox kenn terrain wala kenn bëgg na ko récupérer ñu wax ne da a financer loolu noonu d' accord ñu si donc genre actes yooyu nag moo tax tey mën ñu supporter euh, euh, nit di euh, di supporter président wala di ànd ak moom di liggéeyam par rapport à ces actes yoo xam ne def na ko antérieurement ndax ñun bàyyi la ñu ci opposition dugguñu ñu ci politique. opposition euh, bu nooy bi wala bu salon bi wala bu radical bi. ma nga wax opposition radicale. ci nga bokk. <laughs> waaw. lu waral loolu. parce que comme Sénégal yëpp danoo nit yi danoo sonn nit yi danoo sonn on koy gis chaque jour te te nu ko waxee rek lu ñu duggal ci politique bi mooy dindi lu fi nekk jéem a faj problème sénégalais donc loolu mun ñu ànd ñu fi nekk. da yaakaar ni yaakaar Sénégal dafa tas Macky Sall. Euh, tas na ci ñu bëri. tas na si ñu bëri donc euh, peut-être mën na changer si deux ans yu ko desee euh, mais moom yàlla koo xam. mais mais tey par exemple tey yow euh, opposition bi ndax xalaatoo aussi nga am ñoo si ñoo si àndal. opposition bi amul problème ak kenn si bi ñu woon a jàppale noonu Sonko aux élections 2019 euh, donc amul problème kenn si opposition bi mais tamit lu may opposition rek bu nu changer. Euh, liñ bu ñu jëloon ci opposé wu bu def comme transhumance noonu toog fu nu toog parce que ut xaalis xaalis jarul ko jaru ko. mais est-ce que du amuloo benn risque ci nekk ci opposition radicale bi yow Hamidou euh, Thiaw. non am na ay risques y a beaucoup de risques parce que Sénégal xam na politique nu muy dox euh, nu muy nu muy nu ñu koy doxalee. parce que l'État des fois il utilise tout son poids pour jéem a sanctionner wala sonal ñi nekk ci opposition bi donc loolu on s'y donc mais. mais mën nga si sa liggéey à part. damay damay wax jar na ko parce que euh, à la fin de la journée soo tëddee nelaw ku la wax nga ni man jug naa xeexal naa sama réew. waaw te loolu rek pour man rek euh, loolu même euh, si ça réussit ou que ça réussisse pas pour man loolu c'est déjà quelque chose parce que Sénégal yëpp suñu jógee xeexal seen réew dëkk bi dina avance. d'accord mais yow jeune nga nga taxawal benn parti jeune di MPR est-ce que am na ay ndaw ñoo xamante ne tey bokk nañu ak yow gis-gis. ak xalaat wala am nañu kóolute si yow ba ñëw adhéré ci parti bi. Ah, macha allah fu ñu waxtaan ak nit yi rek les gens adhèrent donc euh, loo ñoo koy rafetlu di wane Sénégal y a beaucoup de gens yoo xam te bëgg nañu seen réew ce sont des patriotes euh, te bëgg nañu xeex seen réew donc loolu ñoo ngi leen remercier bu baax si soutien bu ñuy jox te euh, di ñaan ak mu gën a yokk gën a bëri. d' accord léegi lan ngay tàggoo du Hamidou Thiaw. Ah, donc di sant ñëpp di remercier ñëpp si. confiance bu ñu def tey si au niveau des élections ak élections locales ak législatives yëpp di leen wax ne tamit Sénégal am na ñoo xam ne bëgg nañ seen réew am ñoo xam ne bëgg nañ xeexal seen réew am ñoo xam ne bëgg nañ Sénégal développé avance passé fu mu toll. Mm-hmm. donc tey ñoo ñaar ñaan Sénégal yëpp noonu jug tamit dugg si politique bi même suñ dugalee si politique nañu jug di voté di sanctionné di wax seen xalaat xam ne tey ku fi fal de ñu fee nekk pour servir le peuple non se servir. loolu ñëw pourquoi sanctionner toujours muy revenir si parce que lu tax ma sanctionné sanctionné parce que il faut qu'on ait cette mentalité la mentalité mooy lan ku liggéey su ñu la dàqee prochaine fois de soo ñëwee su dee da ngaa bëgg a toog foofu euh, sa poste di ngay liggéey parce que ci vas dire ni fii Sénégal su ma toog su ma fi toogee liggéeyuma da may dàq donc du neexal xaalis du may ay 5000 francs 10 000 francs mooy tax ma gagné du may ay saaku ceeb du loolu tax may gagné parce que mentalité boobu moo am xam da koy fal. mu toog 5 du liggéey bàyyi ba dernière année bi élection jot mu génne mais ay saaku ceeb saaku soble saaku pomme de terre euh, mais 5000 mille groupement jigéen mu fay leen 500000 600000 ASC mu may leen ay jeu de maillot ak ay bal faluwaat toogaat 5 ans 6 ans du def dara mentalité boobu nag moo am te ça marche loolu nag laa bëgg mu génn ci bopp sénégalais yi ne leen bàyyi la ñu leen di nax bàyyi la leen nax. ku toog liggéeyu laaj leen ko bilan am su dee bilan baaxul sanctionné leen ko génne ko nga teg keneen ba ñoom ñu xamee ne mënutoo leen nax du ay 1000 francs 10 ngeen di mais si liggéey ngeen mën a tax ñu bàyyi leen fu ngeen nekk. Hmm. donc euh, loolooy surtout message boo xam ne dama koy wax Sénégal mais tamit suñuy folli di fal tamit dañu xool ku ñuy fal. nañu xool jaar jaar nañu xool expérience am nañu xool est-ce que kii mën a liggéey wala mënul euh, ñu xool ko balaa ñuy fal nit donc euh, loolu c'est un message très important mais su passé Euh, di féliciter maturité peuple bi di wax nag le meilleur est devant nous et qu'on invite tous les jeunes patriotes ñoo xam ne bëgg nañ seen dëkk ñoo xam ne bëgg nañu changer réew mi ñoo ñëw dugg ci langue politique bi tamit euh, pour jéem a changer fi nekk. jërëjëf Hamida euh, Thiaw ñu la sant gërëm. ñoo leen sant yéen ñëpp di leen gërëm euh, yi moom la ñu invité woon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot ci rajo réew mi FM 15h bu jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck Hamidou caw nag moom moo jiite euh, MPR en marche pour la renaissance bokkoon ci coalition les serviteurs MPR moom nag quitté na ci coalition boobu dégg ngeen. li nga xamante ni dund na ko ci coalition boobu yépp ak regret yi nga xamante ni am na ko ci kon mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw incha allah ci beneen jataay